jaajëf salaam jaamu ko mbedd ni ges baa ngi nuyoo lee maaku mëc wal waa dégg ko fay may chef boy ji ji jilitaire akay boy grave akay messi akay takke akay mëne fu ne vous êtes dans votre émission préférée Galsen Sama Game sur Equivox TV tey ñu dalal benn grand Gaston euh, Gaston akay Baye Jëwrin akay Bandi Mike mais xam naa ni Bandi Mike bi moom dañ na léegi Baye Jëwrin bee ko dominé ñu fas yéene yaatal ak moom lu bëree bëri ci début carrière ba fi mu yegg si nii Euh, lu tax ni ko gars yi di jëwee lu tax mu daw làqatu France toog loolu yëpp dina si ñëw ci kanam tuuti quatre album la génnee si carrière am ginnaaw bu mu génnee xel koom la génne ni yëg soog a nekk génnee tuuti wax job lu bëri euh, teg ci alhamdulilah bi nga xamante ni bi mu génnee yàggul noonu mais bokkoon na si benn compilation Dakar All Star moom Keyti non moom Nix euh, Asmalik ak Keyti ya ah. ñoo ñoo ci nekkoon eh, quatre grands yooyu yëpp nekkoon ay ndaanaan eh, dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais avant loolu dañ koy jox mu nuyoo eh, téléspectateur u Equivox TV Gaston Guèye français. yow salaamaaleykum salaamaaleykum aka français bi moom xanaa moom lu bees la loo loo loo lu lu lu lu gën a si sa xel bi léegi léegi nii. léegi da toog France. yee bon ñu ngi siyaar ñëpp déjà. Mm-hmm. donc yow aussi ñu ngi lay euh, jaajëfal di rafetlu aussi choix bi si ñun. Mm-hmm. donc di wax ne waaw mu ngi nii xam nga Gaston la alias borom alias yu bëri mais alias yëpp benn tur la rek. Mm-hmm. donc alias yëpp ay melo la rek mais euh, benn tur bi mooy mooy mooy junj melo yooyu yëpp. donc voilà je suis ak sama mbokk taalibe ak sama sama sama sama mbokk aussi bi nga xam ne mu lay partagee hip hop bi mm-hmm. donc ñu war a xalaat ci kanam incha allah yaatal waa ci pourquoi dem bi ci pourquoi silence bi mm-hmm. début carrière ba lépp quoi yeah euh, Gaston nga génnee quatre albums euh, comme ni ma ko waxee cinq album yëpp yi nga jot a génne ban album moo la ci gën a marqué bi nga ne alhamdulilah ñu bëri jàppoon na ni dangay ngay bàyyi rab. parce album bu nekk ak ak ak bu ma si dàkkal ça dépend ci période bu nekk ba may génnee euh, premier album bi muy euh, xel koom la boobu moom ma dàkkaloon parce que état d'esprit bi ma nekkoon la woon coi vois euh, yëg soo ko nekk aussi. dàkkal na ma parce tamit benn époque la boo xam ne dama jóge woon si dem ñu may composer ay morceaux ma créé sama studio bopp tëju du liggéey ba génne album ba pratiquement titre yu bëri maa ko maa ko def donc loolu aussi mais album la tuuti wax jublu bëri aussi amoon na benn polémique bu bëri ba amoon si rab par rapport a Gaston nee na na sànni xeer ak yooyu yëpp donc mu am benn challenge aussi boo xam ne euh, ñaari album yi dafa kawe woon trop. donc mu amoon benn défi ndax dinaa mën a teg lu gën a kawe parce que ñu bëri dañuy dañu dañu naan euh, dañ doon wax ne Gaston mënutul def lu dàkk euh, Xelcom la ñeneen ñi naan mënul def lu dàkk yog soo nekk donc troisième album bi c'était vraiment difficile parce que il fallait que nga ñëw gën a ise baar bi gën ko gën ko yéegal teg lu gën a kawe donc loolu tamit lu nice la quatrième album bi aussi itam pareil challenge la woon parce que benn instant replié woon naa si game bi dem kaaw donc toog fa benn trois ans boo xam ne dama absenté woon donc ñu bëri aussi dañ doon laaj ba xam ndax absence bi nga dem toog kaaw est ce que bu ñëwaatee est ce que du perdre loxoom est ce que lii est ce que là donc album bi génn aussi tamit mu nekk loo xam ne gars yi kiife nañ ko moom moo jël sax suma juumul euh, meilleur euh, lyriciste donc il faut souligner aussi premier album bi bokkoon na si nominé meilleur album yi euh, ak si si hip hop hors pendra yi deuxième album bi moo remporté meilleur album troisième album bi moo remporté meilleur album quatrième album bi aussi tamit euh, ñu donc je pense que album benn bu su nekk époque bu mu nekkoon bi ma tolloon moo nekkoon sama meilleur album si man mhm. yeah am na solo ni nga ko ni nga ko résumé noonu am na solo ju ko ciy bu baax a baax bindkat la alhamdulilah moo jëloon meilleur euh, lyriciste euh, année boobu noonu ñu ko ci béggee bu baax a baax bi mu ci paree nit si lan ko jox mais garçon gars yi dañ doon gis benn gaan bu mën a bind mhm. sa bind ñu bëri dañ ko nawoon ñu toog benn temps bi nga génnee alhamdulilah doon na jox nañ la meilleur lyriciste album boobu dañ ni bind bi moo gën a oyof par rapport ak seeneen album yi. waa bon loolu choix wu choix wu peut-être ah bon maa ngi doog man boog maa ngi soog a dégg euh, wax boobu si yow ba boo nee dañ ne dañ ne mooy ñan mooy li dem si yàlla pokkati bi pokkati di wax rek bu bu gars yi waxee ne gars yi nee nañ mais gars yi ñooy ñan. c'est une question coa vois euh, donc je pense que écriture moom écriture la rek kenn ku si nekk ak. Euh, ak ak fi mu lay yóbbu ak ak ak li mu lay laal mais man personnellement euh, album alhamdulilah des sons yu mel ni coloré mhm. donc je pense que du son yoo xam ne du du Masamba wala Mademba Thiat bi moo ko mën bind. Mhm. son bu mel ni ay euh, ay euh, du ni ko foogee mooy sound Europe bi. Mhm. ay ay lu guddi ak fajar. son yooyu c'est des sons yoo xam ne du n'importe kii moom moo koy moo koy mën bind ci mouvement bi. tu vois c'est vrai que ni côté musicalité. Euh, si album bii nii la gënoon vocaliser mais ba léegi côté thème aussi mu ngi si woon am na ay son yoo xam ne euh, mooy kon ni ma la koy waxee rek du n'importe kii sera bi moo ko mën a bind kon ay ay coloré kon ay du ni ko foogee c'est pas n'importe kii moo ko mën a moo ko mën moo ko mën a bind ci rab bi léegi nag on prend de l'âge euh, certes peut-être ñenn ñi nekk ci mbedd mi yenn yenn yenn yenn kàllaama yi wala yenn affaire yu ñuy xaar te ñun dañuy jóge ci étape boobu ñu ngi ci beneen étape ñu ngi ci leneen mm-hmm. mais li gën a important rek moom mooy gymnastique intellectuelle bi nga xam ne moom mooy daw ci ci ci écriture bi moom mooy aussi vecu bi surtout parce que man bind du ay créer ay rimes yu extraordinaire déedéet man bind vécu la déjà il faut nga am dund il faut nga am vécu ba pare mooy benn bi ñaareel bi mooy il faut que mu am ay image ci say rap parce que tey booy bi ñuy wax ay punchline ay lii ak laa gars def nañ lépp tu vois mais des fois gis tey jii tey jii nii bo bo bu ñu demee ci histoire rap ngay jël son yi nga xam ne la gars yi di gën a kiife di gën a son yooyu amul benn pratiquement amul benn figure de style ay dund bu déggan na lay wax mm. ay maala déggoon bind lan lay wax mm. mais son yooyu amul benn figure de style bu bu garaaw lan moo si extraordinaire mm. mooy vécu bi gars yi am ba ak état d'esprit ba bind texte bi ak image yi ngay gis si écriture bi c'est sa qui est important loolu moom mooy def euh, valeur u charme char charme bind benn ci man pour man euh, li nga jot a bind si sa carrière mm-hmm. euh, pour man boog sama xalaat laa wax ni ma daan dégloo mooy yóbbu ci yenn dimension mm-hmm. ba tey tey ñu toog fii sax di xaw mën na ni bokk nga ci lu tax ñu koy def parce mhm. que démb mënuñoon dara say wax lan daan dégg mhm. dem gëstu gan gi yor bay wax li muy wax nii mhm. ba tey ñu yor ko comme ni nga ko yoree mais loolu li ko def si ñun boobu ay tuuti wax job lu bëri la ay yëg soogay nekk ak ay xel koom la euh, mais du alhamdulilah pour man euh, yi nga daan bind yu njëkk yi moo gën a kawee par rapport ak bi mais tendance booy tamit peut-être xaw a fekk si album bi yaa ngi koy wax si biir yaa ngi naan côté musical nga gën liggéey côté musical dóob lyricalement dóob mais garçon bi nga xamoon mu daan bind bind boo xam ne danga ko daan déglu ay maam booy ba tey jii booy boo leen ko tegalee tey sama caméraman bi ma ni ko garçon laa invité dani ma garçon ma ni ko garçon bu way sama maam booy dafa kontaan parce que saan yooyu moo ko marqué comme waasoo sama jigéen bu ñuy toog di waxtaan maam booy ba nii nii may waxe yow da koy déglu di ci gaañu ñu bëri dañuy jàpp ni bind boobu ba tey moom moo gën a kawe que par rapport ak alhamdulilah parce que alhamdulilah waroon na jël ay trophée yoo xamante ni du bind kese lañ koy jox tey alhamdulilah nu ñu ko nommé meilleur album lyriciste bu fekkoon tuuti wax job lu bëri la lay compétiral tuuti wax job lu bëri da koy wàccee te yow xam nga loolu euh, mais peut-être li la dal ak dal yenn grand yi mooy topp xaw a topp tendance booy tuuti euh, côté figure de style maa ngi dégg yaa ngi ciy wax mais garçon yow da ngay utiliser figure de nekk si level ba tey ji kenn dàqu la ko Sénégal mm-hmm. ba tey moom rek ngay utiliser. non waxuma ne du ma ko utiliser xam nga par exemple quand tu dis que ni euh, yow ay sound yu mel ni ay euh, album yu mel ni yëg soo ko nekk ñoo la yóbbu mais forcément sound boobu noonu loolu c' est que euh, gars yi lu ñu def la ils font la part des choses dafa am ñoo xam ne c' est des personnes mm-hmm. par exemple am na ñoo xam ne Youssou Ndour lu mu way way way way Youssou Ndour démb yi moo la neex. am na ñoo xam ne ba tey ñoom rétro Omar Pène la ñuy déglu. Mm-hmm. ça c' est des mm-hmm. tey jii si game bi si game bi ba léegi nii am na ñoo xam ne. xam nga il préfère pas déglu danaa mënuma déglu rab bu tey bi rab rab démb lay déglu comme man personnellement mm. man je préfère dem déglu benn albumu Redman bu yàgg que ñëw di déglu benn album bu bu bees bi mm. donc loolu aussi il faut ñu xam nga dafa am euh, melomaan bu su nekk dafa am ay ay époque yoo xam ne moo koy marqué si artiste bi mm. mais loolu nag sa veut pas dire que ni artiste bi foofu rek la war a dem message boobu noonu lu tax mu foroon si yow parce que dafa amoon si benn état d'esprit boo tolloon am benn leer boo doon xencu donc yaa ngi ko doon wër gisoo ko donc leer googu fu mu ballee si yow état boobu ba am lu mu def si yow maanaam état boobu noonu mënutoo ko dundaat c'est impossible dafa mel ni gindeeku ñaari yoon la mënul nekk c'est-à-dire instant ba ngay gindeeku loolu noonu instant boobu noonu mm-hmm. période mënoo wax ne moo ñëwaat donc tu peux te baser sur ça pour dire que ni album tuuti wax mbool jóob la bëri moo gën a non non non mm. parce que man su ma dégloo sama album yëpp musicalement parce que artiste dafa war a di màgg tu peux pas mooy li wax rek ne ne ne yëg soog nekk dafa am lu mu def ci man parce que début bi dama doon dem si Ama Diop rek ñëw toog mu yor benn clavier mu composé musique man mu bind samay texte ñëw rap mais deuxième bi yokkute la maanaam beneen jéego nga parce que dematoo toog naan gaañ ba tëggal ma ni déedéet mm. yow yaa installer say logiciel teg sa mm-hmm. piano commencé di composer say musique loolu beneen jéego la mm-hmm. nga dem aussi tam ba di def ay son album alhamdulilah ba nga si def ay son yoo xam ne da laal yeneen univers mm-hmm. loolu tam yokkute rek yokkute la mais loolu nag ça dépend ci nit ñi ki dam ñoo xam ne c'est des personnes nostalgiques moo tax ñu naan la ay non man ba léegi takkandeeru mbedd mooy sama sound parce que kooku loolu lay dund ba léegi am na koo xam ne ba léegi nee si Gaston soundu euh, Hikma moo may laal mooy seen son donc tu a pas te nag si époque yooyu di wax ne bii moo gën a lii wala bii moo gën a lii je suis pas accord waaw d' <laughs> naa ci li nga wax mais côté musicalement moom alhamdulilah xoolul album yooyu noonu comme moom lu mu wax na <laughs> wax na waaw dañuy nangu rek xam nga ñu mën a ñu mën a génn foofu euh, Gaston ibbi woon nga benn studio def dara mm-hmm. euh, mu daan dajale ay artistes yu bëri mm-hmm. euh, gars yi rafetlu woon ko mm-hmm. mu nekkoon label bu bëri woon doole sax gars yi doon xaar ay bagages yu bëri Euh, garçon xaw ma dafa dem France toog mhm. studio bi mujjee tëj mhm. déggatul def dara mhm. lu waral loolu def dara amatul waaw def dara amatul comme studio yu bëri yoo xam ne amatul kon grand yu bëri yu nekkoon ci rab bi nekkatuñ fa. non mais yow que liggéey nga ko fi. dëgg la effectivement loolu que li fi Gaston bàyyi du nekk ay studio li fi Gaston bàyyi Bob Marley tey bu ñu koy fi bàyyi nekkul mooy li nga xam ne loolu liggéey bàyyi fa mu nekk loo xam ne du dañ. Mm. donc Gaston mooy ma ni ma koy waxee sama dee mm. Gaston mënatul dee c'est-à-dire mënatoo wax histoire rap ba génn ci Gaston mm. léegi nag ay ay ay studio wala ay loolu yëpp ay état d'esprit la rek c'est-à-dire tegoon naa benn studio regrou ay ñu bëri ñoo xam ne jaar nañ fa tey ji ñu ngi continuer ci rab bi tey boo leen di lim hmm. à travers sama studio la ñu continuer la ñu la la ñu fëlee ba tey sax am na si ñoo xam ne am nañ seen studio bopp donc continuer rek continuer rek la continuer tu peux pas dire que ni euh, Ablaye Wade ba àdduna du tukki dafa war a am parti partem wala dafa war a continuer di politique mënul nekk époque bu nekk am loo fay toll am loo fay liggéey nga nga avancé hmm. instant bi ma tollee ci bind texte kese naa texte instant tollee ci euh, jóge état commencé nekk vraiment artiste dund naa ko instant ma tollee ci créer label créer naa label léegi instant bi ci beneen instant laa toll donc je veux pas nekk di di di di di dundaat état d'esprit boobu li amoon solo moom mooy def dara instant bi mu nekkoon lan la liggéey ci mouvement bi tey ji affaire bu rëy la liggéey boo xam ne jusqu'à présent ñoo ñooy continuer di évoluer mm-hmm. léegi nag dafa am benn fakastalu boo xam ne bu doy waar boo xam ne dafa nekk ci musique sénégalaise boo xam ne bu fekkee ne da nga nekk nit boo xam ne tu rek mm-hmm. da ngay surux ci kàmb gi Euh, ñun bañ nekkee xale dañ doon rêve di gis ay artistes yu mel ne ay Baye Pël ay Maxoro Jógay xoolal ñun lu ñu jàngal ci àdduna tey boo demee ba toog te tey ji si jamono ji ay Baye Pël wala ay Maxoro Jógay feebal gaz di leen ketal hmm, oh. donc loolu xam nga yow dafa war a am lu mu def si yow tey ji Iba xoolal lu mu def si musique bi ay rapajo hmm. ñu dem ba tey ñu bàyyi loolu yëpp dem kaaw récupérer recommencer à zéro hmm. lan la war a jàngal pour man loolu mooy nit boo ànd ak ay nit ñuy dox ngay gis ay nit yu bëri yu fakkasalu li nga war a poser sa question mooy naka nga mën def ba doo fakkasalu si nii nii problème essentiel bi ñu am fi Sénégal du ay problème de ay studio mm-hmm. li ñu am mooy dañu war a fexe ba ñu reconnaître statut artiste bi parce que tey jii rap joo xoolal ñoom ñaata temps lañu la ñu sacrifier seen life ci rap bi est ce que normal na tey ñu dem kaaw delluwaat di commencé waat seen vie à zéro temps boobu ñu sacrifier boobu est ce que musique boobu ñu sacrifier est ce que tey waruñu woon toog chaque mois wala chaque trois mois bees yaa di leen di leen di leen jox seen i droit yoo xam ne dañ si mën dund mm-hmm. donc buñu demee ba toll foofu noonu ñu xam ne musique bii mënu la indi loolu da ngay uti li ñuy wax tremplin léegi tremplin boobu nag ku si nekk ak ñu mu koy utee mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi toog fii Sénégal créer seen structure mm-hmm. di déposer ay financement di si am seen xaalis mooy seen tremplin am na ñoo xam ne ñoom bëgguñu loolu c'est des personnes dignes c'est des personnes yoo xam ne dafa am lu ñu liggéey ci rab bi ba tey mm-hmm. ils préfèrent dem dellu di xëy suba teel di jox seen njaboot lekk gu du lew ba pare continuer di musique man je fais partie de Bës xam ne dama ko def léegi nag ça pas la important mooy nga def ce choix ba pare assumer que man dem kaaw di continuer samay musique ba léegi parce que maa ngi continuer ba léegi que tey jii limay may ci àdduna bi ak sama groupe de jazz bi ba ba nekkee fii ci rab bi malgré fii la ëpp lu ma album mais groupe de jazz boobu fi ma bi rab bi yóbbu ma fa donc ñi nag il faut di di juger rek selon mouvement hip bi mm. non non non affaire yi may def ci kaw maa ngi tourner di def ay boo demee tey nga tàppee les dix meilleurs albums jazz yu génn deux mille li génn. 2018 euh, 2019. Euh, non mille deux mille deux mille seize. Mm-hmm. da ngay gis suñu album Selebe Yoon. tu vois mm-hmm. donc ñu ngi tourné ñu ngi def suñuy def léegi nag c'est pas parce que existe woo Sénégal instant bi nii rek nekk nekk yow danga nga bàyyi musique wala a leneen mm-hmm. ay mag lañu ñu ngi ci leneen ñu ngi jël âge donc il faut tamit ñu xalaat suñu retraite c'est très important. rappeur bu def albumu jazz mun nañ ko xaar ci yow nga defal ñu ko ndax bu dee rap moom deselatoo tooñu dara. instant bi euh, Gaston buy ñëwaat. day nekk Gaston bu 2003 bu 2007 bu 2011 ak Gaston bu 2000 bu bu 2020 bi ñu loolu moo important c' est que artiste mooy li ma la wax rek vécu la. tey jii nii su may génn waat album. damay génn album boo xam ne depuis ba ma commencé ba tey vécu bi li ma jàng ci jazz bi li nga xam ne dund naa ko ci rab bi li ma xam ci Europe li ma côtoyé yenn musiciens yi loolu noonu moom mooy nekkaat sama prochain album. mais sama prochain album avant loolu di ñëw lii ñëwaat li ma bëgg mu ñëwaat. li nga xam ne moo a ñëwaat mooy best of Gaston lay nekk. c'est-à-dire sama sama parcours son yi nga xam ne moo marché moo marqué Sénégal yëpp mm-hmm. laay jël def ko ci ay musiques yu bees yokk ci quelques musiques yu bees après jëm ko def benn grand théâtre wala suite projet boobu laa nekk nii quoi best of Gaston lay tudd. best of euh, Gaston si 2020 bi mën nañu ko xaar. Euh, yaa ngi wax grand théâtre mm-hmm. Gaston loo tax du teg mm-hmm. gas loo tax du teg ay événement ak Gaston nu mel ci hip hop Galsen rare nga dégg Gaston teg na événement. moom daal kaaw rek <laughs> li problème bi waaw mooy li ma la wax rek c'est que instant bi ñu nekkoon c'est xam nga gars yi Sénégalais yi des fois dañuy dañuy euh, comment dire je sais pas comment lu com lu comparable tu peux pas comparer que tey jii buzzu ana lan la buzzu Wally Seck di wàññi ci méritu Youssou Ndour. exactement donc dafa ñoo xam ne tey jii Sénégal dañu am buzz am ñoo xam ne dañu am mérite donc ñooñu seen buzz boobu amul lenn lu muy wàññi ci méritu ci méritu ñi leen lu nekk ak épopam ñun instant bi ñuy bi toll ci rab bi suñu époque du woon ay organiser grand théâtre mm-hmm. suñu époque moo doon la moo doon danga doon nekk ci top maanaam euh, producteurs yi ñoo doon topp sa ginnaaw ñu ñuy organiser concert yi ñoo doon topp sa ginnaaw di daw mm-hmm. tey jii nii ngay jouer bu may dégg booy di wax ay ouverture foyer ñun dañ doon dem ba dañu leen mujjee di louer scooter pour mën a jouer parce que dañu am ay sept wala huit ouverture foyer si benn samedi oh. duñu jël oto scooter la ñuy mujjee jël pour mën a jouer école yooyu yëpp donc loolu époque la woon dund nañ ko mm-hmm. tey booy ñoo toll ci organiser ay concert organiser ñu ngi ci yeneen affaire tey jii ñun si yeneen affaire la nekk mais certes gars yi namm nañ ñi gars yi ñu ñuy xaar parce que am na lu ñu defaat loola waral bu ñuy ñëwaat mm-hmm. indiwaat loolu yëpp def ko ci ay musique yu bees mm. yokk ci ay ay son yu bees mm. tuddee ko muy nekk loo xam ne mosul génn ci histoire rap Galsen mm. best of Gaston kenn kenn mosul dégg best of kii wala best of kaa fii Sénégal donc maa ko ma man maanaam nar a nekk première personne bu ko ñun yooyu la ñuy xaar si si si si si ñun mais duñ fi nekk naan ñu ngi koy ñàkkanteel booy yi booy yi buzz la ñu am mm-hmm. ñun mérite la ñu am mais gas euh, li nga li nga li nga wax nii am na rappeurs yi seetaan émission bi best of Gaston mun nga ni 2020 lay génn mun nga ko génnee sax décembre 2020 balaa boobu benn booy def loolu mm-hmm. euh, waaw mais bu ko defee itam <laughs> garaawul wala en tout cas lu bees la te xam ne ñun ñu wax nañ ko fii mhm. et puis même bu ko keneen defee sax ah, c'est pas important li am solo moom mooy mhm. euh, li li am solo moom mooy def na ko même bu fekkee ni par exemple euh, man maa ko def wala moom moo ko def man dinaa def sa mbos moom dina def bosam man ma def sa mbos mhm. c'est pas important ndax euh, lii wala laa mais si instant bi ñu toog mën na yow instant tey bi nii amul kenn ko ko defagum voilà am na solo mais gas lu tax gas bëri problème gas jàppal fi gas baal fii gas bu amee problème ak diw rek su jugee si lee dali si la lee su jugee si la lee dali si la lee naqari deret la wala lan la quoi. waaw la moo tax dib bëri problème la moo tax ñëpp song ko. non dib day cokkaas gars yi mais c'est xam nga du question cokkaas c'est que xam nga yéen li ngeen comprendre mooy. Hmm. gis nga dafa am foo xam ne boo fa tolloo ci musique maanaam mënuñu la bañ a sànni xeer mënuñu la bañ a lijjanti parce que yow yaa nekk ci kaw man ba mu fa nekkee man la woon avant ma fay nekk am na keneen ko fa nekkoon pakati nekkoon na fa fataa am na ay temps moom rek la doon clash awade dañ ko doon clash dëkk dañ ko doon clash waa daara dañ doon clash donc il faut que ñu xam ne dafa am foo xam ne ci rab bi boo fa taxawee loolu mënul ñàkk mm-hmm. c'est comme si que benn mango bu ñor nga ci kaw garab bi mm-hmm. gars yi ñëpp dañ lay diir bu fekkee waddoo mm-hmm. soo danañ la jéem a sànni xeer pour nga wadd pour ñu lekk la bu fekkee mënuñu la sànni xeer ñi dinañ jéem a yéeg ci kaw garab gi ñëw fekk la fi nga nekk pour nekk foofu loolu donc sa va pas dire que ne da ngaa compliqué wala da bëri histoire du loolu c'est dafa am foo xam ne boo fa toogee moom munoo ñàkk bañ a recevoir ay xeer munoo ñàkk bañ a recevoir ay clash parce que loolu la waaw du man rek du man rek mm-hmm. peut man nga doon wax démb tey am na keneen koo xam ne mu ngi koy dund dib mu ngi koy dund dib bu fi jógee tam keneen bu ñëwee kooku koy dundaat rek mm-hmm. parce que loolu loolu bi noonu la mouvement hip hop noonu la mos a mel loolu am États-Unis mm-hmm. loolu am France loolu am ci adduna bi yëpp foo xam ne la moom artiste bu nekk fa lay rêvé pour rey boppam pour toog fa mais boo ko xasee ba toog ah dafa am lu ma dal. xamal ni yaa ko liggéey eh, léegi sa relation ak nouvelle génération yi booy mel ni Dip gis Guiss Ngaaka Blindé One Lyrical keneen ak keneen mhm. yow ak ñoom mi ngi relation bi euh, je dirais pas que naayisul. je dirais pas que mu ngi nice parce que on se fréquente pas cest dire man ak Ngaaka Blindé duñu fréquenté man ak kii ñu fréquenté mais de loin ñu ngi gis booy ñu ngi def liggéey bu am solo tu vois mooy li may faral di wax rek tey jii buñ demee bay wax mouvement hip hop ñun grand yi taxuñu middle bi taxu taxuñu booy ñoo tax parce que ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo koy handal mm. te jii bu amee ay yenn engouement bi ci Facebook bi fala euh, fans yi di xëccante ñoo tax booy ñoo tax donc respect boobu ñun dañ leen koy delloo parce que ñoom ñoo toog di di di di euh, di ñoom ñoom boo xam ne ñun képp kuy grand da a delloo mm. mais ça pas dire que dañ leen di du leen fréquenter mais cër boobu ñu ngi ci kaw ñu ngi koy gis ñu ngi xam ne ñoom ñu ngi koy représenter même bu fekkee ne sax am na ay fakasalu kon ni mu amee woon ay fakasalu ñun jamono juñ fi nekkee mm. am na am na solo comme ni mu amee faqastalu comme jamono bi ñu fi nekkee euh, loolu am na solo mais mais gas euh, tey gis nga booy euh, ñi ngi saagante tolloon ngeen ci gis nañ fi yow ak Karim gis nañ fi yow ak ñeneen ak ñeneen rappeurs yi fi doon sànnante bi coalition ñamu mbaam Crésicool yëpp Crésicool waxtaan nañu mu ne ma bu ma gasoo classé bu nu kenn dul bul ñoddi Crésicooloo bu nu kenn duuloo nee na loolu bokk na ci lu ko may tur sa classe la yàgg classe mm-hmm. ma ne ko lu tax tontuwaatu mu ne non du ma tontu parce que gas daf ma tegal gâteau mm-hmm. loolu duma si tontu li ma defal noonu classe la mais daf ma neex mm-hmm. mais gas lu tax gas moo mun classe. par rapport ak eh, gas moo mun classe. par rapport ak ñu may gisee booy di classé léegi dañuy saaga rek di teg sew da ngay classe artiste duñ si dégg saaga mais da nga ciy dégg figure di style bu rafet. waaw parce que école yi bokkul ñun suñu école ay école Rapadio la ñun fi la ñu nampee si ay Keyti si ay Maxi Crési si ay Matar la Kagulaar si ñoo xam ne euh, li leen gënoon soxal moom mooy gymnastique intellectuelle mooy c'est-à-dire euh, si biir même su fekkee sax da nga bëgg a wax cereeg caakar yi mburoog soow sax dafa am benn benn benn gymnastique intellectuelle boo xam ne da ciy am c'est que ah, maanaam aspect artistique bi ñun même bu fekkee dañuy clash sax man boo comme par exemple boo jëlee sant mel ni àla accu clash la mais da ngay gis aspect artistique bi léegi nag dañ toll ci benn jamono joo xam ne nekkatul loolu parce que booy lu lay wax ay faire du sale lay wax donc ñoom instant bi seen jamono Euh, ku gën a ñeme wax bu ñaaw la bu ñu waxante dëgg rek waa c'est que même su fekkee ni da leen reconnaître ni liggéey nañu mm-hmm. mais ñoom seen jamono ku gën a wax bu ñaaw la ku gën a ku gën a kon xale jigéen ñi rek léegi nii ay wow bët kon ay gel yooyu ngay gis ñuy def yenn affaire voilà yooyu noonu mm-hmm. c'est que jamono kon ci jigéen ñi wow bët la mm-hmm. mais si booy yi tey jii gën a ñeme wax la maa la gën a sañ wax maa la gën a ñeme ñoom seen génération loolu la donc kon clash yi la ak clash yi mënul bokk c'est pas ñun dafa amoon benn aspect artistique boo xam ne daf si nekkoon. Hmm. mais ñoom seen jamono gën a ñeme wax la hmm. maa la gën a ñeme wax voilà waaw parce que man damay dëgg affaire yoo xam ne man damay sax tiit voilà même man man bu ma ko doon wax dinaa am fit wax ko mais duma ko waxee noonu mm. dinaa ko dinaa utiliser ay jeu moo mots xam nga jéem jël euh, wax ji mm. dagg ko en jël jël suffixe bi nag siwal ko ak leneen jël préfixe bi def si leneen wala ma xam ni ma koy mu xam ne dafay rester artistique ñun suñu jamono c'était ça mm-hmm. voilà même bu nekkee wax ji sax day ñagas mais dina am benn aspect artistique boo xam ne dinañ xam ne am na liggéey ko mais du ñëw rek nii mu brut nii dafa brut trop quoi am na am na solo ñu koy bëggawaat bu baax a baax mais gas yow ñoom Karim mhm. artistes yi nga xamante ni jotoon ngeen fi am biif mhm. si du biif sax classante yow ak ñoom Karim mhm. yow ñoom Milka léegi lépp nice mooy li ma la waxoon rek li ma lay wax si Karim ak ak Milja Milka ak booy yu bees yi loolu laa lay waxaat man du ma fréquenté Karim du ma fréquenté Milja du ma fréquenté yu bees yi parce que nekkuma fi maa ngi Europe mais de loin maa ngi gis liggéey Karim ñëpp xam nañu waaw ñëpp xam na ni ñu ngi ñu ngi. lu ñuy dégg muy wax yow moom léegi nice. no man ak Karim suñu am problème personnellement comme nii man ak yow nii. Mm-hmm. problème bi ñu amoon affaire hip hop la woon. et ça reste loolu noonu. Mm-hmm. la preuve ba mu ñëwee mu am mu am mu am audience dama def bàyyi li may def dem tribunal dem taxaw ko. Mm-hmm. donc il faut que ñuy ñuy def la part des choses cest à euh, affaire bi cadre rab la war a yam mm. am na foo xam ne waru fa egg voilà si rab bi mën nañu wax la ñuy wax mais bu egg bu jógee ci rab bi rek mm. tey jii lu ti am tey jii nii mm. dipp om omzo wala dip ak karab kanam tey ji bu si kenn amoon benn affaire bu doy waar boo xam ne kenn ki moom bu taxawee moom kese moo ko mën a sauver daf koy def parce que affaire rab la mais am na foo xam ne bu ñu fa tolloo bu ñu fa eggee nit ak nit la loolu leneen la quoi il faut gars di def ñaari affaire yooyu man ak man ak Karim suñu problème rab bi la woon. Mm-hmm. le fait que ma ñëw mu am problème ma dem teewi ko loolu nit ki ak nit ki la. Mm-hmm. donc man man boog personnellement noo lay xalaatee. sa problème ak Milka. Milka aw ma ay nouvelle am xaw ma sax fu mu nekk. Mm-hmm. yee saan bu mu la defaloon. waaw saan waaw saan boobu état d'esprit rek loolu. Euh, euh, dund nañ ñun ñaar lu rafet. moom mu xëy def lu muy def. léegi nit ñi nga xam ne gis nañ ma dund ak moom. am na benn benn benn benn benn jàngat bu ñu ci def. moom aussi wàññi yow par rapport ak saan boo ko dégloo. non wàññiwul dara si man wàññi na ma parce que bett na ma quoi. Mm-hmm. parce que am na foo xam ne tegoon naa ko fa. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee ba may dem def dara. Mm-hmm. ba may dem kaaw dama leen bàyyil studio lëmm. fay trois mois avant maa dem. dem di continuer di fay bàyyi leen studio complet donc dund ak moom lu bëri yaayam déplacé wu ñëw denk ma ko. ma am lu bëri lu ma dund moom donc bu demee ba def li personnellement dina ma bett. dëgg la voilà mais je me dis que moom la. voilà léegi instant bi moom ak xelam la. parce que kaso ñaar la mm. dafa am kaso boo xam ne cent mètres la am kaso boo xam ne yow ak sa xel la mm. su ko waxee ak su waxul ma xam naa ne mu ngi bërëng penam si biir xelam dëgg la euh, par rapport ak bi ñu dégloo sound bi yaa ko njëkk a classe ci mm-hmm. gas xam nga maanaam tey li li dal Dip Doundou Guiss mm-hmm. dafa xaw xaaral si ngóora fan ban parce que yow da ngay nga exactement wax ma bi nii mais pitbull il paraît que moom da ngeen daan café lool waaw non pitbull pitbull waaw pitbull waaw pitbull bi waaw pitbull bi pitbull bi bi la waaw si pitbull bi eh, eh, si parti bi ngay naan pitbull bu nu yeew nga si xaw ma affaire yooyu nag il paraît que da ngeen ko doon tooñante seen biir bu ngeen daan toog quoi ci lu ma si lu ma force benn si weewu bay ñu ne loolu daan ngeen ci tooñante quoi yow booy pitbull nga xam nga affaire yooyu bu ñu yeew si affaire yooyu moom it mu lay mbalak naan la rong rong rong bi bu génnee naa la classe xam nga waaw affaire pitbull naa la <laughs> yow déglu nekk nit boo xam ne magum jëmm laa uh-huh. eh, te li may def nii du ko defal mbindeef xam nga tax ma la koy defal uh-huh. parce que ñun ñaar dañu am lu ñu bokk muy leeru laa ilaaha illallaa mës naa la si cukk sax wax mais nangoo ci woon wax non dañu bokk dañu bokk laa lay wax nii moo tax man dama lay wax barke njàmbe borom daaru bi ñu bokk mm. affaire pitbull boobu noonu amul musuñu ko fawee barke leeru laa ilaaha la te waatul ma ko sax ndax ñu may déglu mhm. mais yow ak lu ñu bokk laa koy waxal amul c'est pas c'est-à-dire xam nga euh, wax wax la bu xasee ba génn déjà di nga wax sa benn wax nii rek mhm. mais après nit ki bu si gisee boppam loolu moom la loolu moom la par exemple yow boo waxee ne ay pitbull bu ñu man nag moom wax waxante ay pitbull loolu amul musul am amul fenn musul am déjà yow yaa ngi naan ay sanwanu ngóora bi la yow yaa ngi naan pitbull bi la mm. am na ñeneen ñu ma ne sanwanu dalal la parce que moom dala maa la tudd mm. donc wax yi bëri na donc doo xam ban la donc mooy li ma la wax rek certain moom xalaatoo non yow xam nga ma man ak. dëgg la li ma dund kon li ma dund ak Iba. Mhm. dund ma ko ak Milka. Mhm. te bu mu bëggee clash Iba dama ko clash direct. dëgg la nga donc su ma nee bay clash mil Milka. Mhm. ñëpp dinañ xam na clash naa ko. mais yow doo naan saan bii la ki naan ki naan la. moom moo gis boppam si wax yooyu. léegi nag li tax mu gis boppam si wax yooyu loolu moom ak boppam la. dëgg am na solo lii ni mu wax fii Khadija nangu si ci mësu fen na fekk naa ki si joo jaamiru boobu miinante wuñu sax maa ngi ko si doon cukku mais nangu ci woon wax mais boobu du woon émission laaj la nii rek tey mu ñëw leeral ko euh, wax ji leer na ku ci ku ko dégg xam na ni lii lu leer la ku si nekk ak nag noo koy xalaatee yow la quoi mais moom expliqué na expliqué na daas hip hop hip hop moo demee noonu tey day ñuul suba mu weex tey mu mett suba mu neex noonu la demee respect ci moom bu wér-wér mais ñu xaar la ak lan waaw déjà am na benn vidéo bu ma doon tourné démb ba mm-hmm. ak barki démb benn son bu tudd euh, wër di wax mm-hmm, donc moom mooy nekk pression euh, vidéo bi ma war a génne mm-hmm. après loolu moom incha allah mooy li ma la best of Gaston bi si la si lañ nekk waaw mais baa doo ko yóbbu ay après avril ak yooyu parce que gars yi na mënal la <laughs> non fu ñu koy yóbbu moom mooy li may wax rek man moom musuma yàkkamte sama live euh, sama quatre album yëpp boo ko dégloo di nga xam ne liggéey la donc man ku ma xam xam ne ku jox cër sama liggéey laa donc su ma joxee sama kàddu dama ko war a def dama koy def te maa ngi seet dinaa ko def léegi nag euh, instant bi mu war a paree ndax décembre 2022 lay nekk wala loolu moom si liggéey bi la des rek lu ñu tëral woon ci waxtu émission bi jeex na mm. euh, lan nga lan nga bëggoon leeral sa laaju ma la ko nga ñëw ci après ñu tàggatoo mu jeex euh, mooy li ma waaye di laajoon barki démb rek ne lan mooy li gën a rëy li lu hip hop jox mën na ko yàlla waaw parce que tey bañ doon bind mm. benn son bu tudd fi bët yam hmm. dañ ko doon bind dañ doon làmbatu dëgg rek mais xamuñu woon dëgg googu fu mu nekk man li suñu borom di wax booy dox jëm ci man hmm. ma daw jëm ci yow boo dawee jëm ci man ma naaw jëm ci yow boo naawee jëm ci man ma jaxasoog yow doon yow doon kaddu gi ngay waxee doon nopp yi ngay déggee tey bu ñu nekkee ci hip hop mu nekk loo xam ne ñenn ñi sax dañ ne musique dafa araam hmm. tey ñu dem ba ay ndaw yow nga nekk si preuve vivant boo xam ne à travers man si sama écriture si nga déggee kaddu ba dem sóobu ba gindeeku donc loolu sant yàlla bu wér la waaw donc sant yàlla bu wér la ñun bokk nañ si ñi nga xam ne euh, njàmbe cëral nañu parce que loolu du n'importe qui lañ koy may te duñ ci lenn rek tame rek lañu tame rek lañ ko sa donc ñu koy sant njàmbe bu wër di woo ñëpp le 25 di la jaajëfal yow tamit ak saa yokku jaajëf di koy bëgg bu baax a baax kooku sama jëwriñ la Khadija euh, Gaston ékay ba jëwriñ ñu koy bëgg bu baax a baax Galsen sama game la woon sur Equivox TV di leen jox rendez-vous beneen yoon dinañ fi dalalaat beneen daanaan respect ci moom bu wér a wér jaajëf sama gaay